asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi nga xam ne teew ngeen fi yëpp yéen bokki taalibi yëpp yéen bokki taalibi yi yépp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant kilifa yi diine yëpp yëpp yëpp amul ràññele amul xaj ak seen ñëpp maa ngi leen di sant ndax. yal na nanu ko yàlla fayal ndax kat sagal na der bu ñuul. danaa di wax ni ku mel na moom waajuram di ku ñuul ñaari waajuram yépp ñu ganee àdduna fii génnuñu dëkk bii te raw arab yi dàq leen jàng fu mu jóge fattaqullah yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla jàngal leen ñoom yàlla leen jàngaloon sëñ Bamba bokk na ci ñi yàlla jàngal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 yéen da ngeen di wutal président Senghor noonu ah. kii li mu wax sëriñ la waxu sëriñ la wax lan moo ci nekk lu ngeen di censurer man dama koy passé ba ko sëñ Abdou Lahad déggee mu yebal Modou Mamoun Ñang mu ñëw fekk si ma mu jox ko ñeenti téeméer ni waxal Bachir ni ko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 ba bi mu fi jógee fa tabaarakàllaa ñëpp wekk këri diine yi wekk l'islam bi dafa am xam-xam am xel fa tabaarakàllaa am njàmbaar fa tabaarakàllaa nekkam fii di xalifa sëñ Touba tax na gouvernement bi gën a gën a wekk kilifa diine yi waaw ndax melo ko yàlla joxoon mbir mu teew ci kanam walla mbir mu xew ci àdduna dana ca wax mbaa mu def ca loo xam ni ñëpp dañ naan fa tabaarakàllaa sunu xaalixin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 bâtisseur comme ni ko gars yi di waxee mais loolu lépp visionnaire am nag naalal sëñ Touba parce que bëgg-bëggam ba moo doon te tey Touba mel nii gis nga ni yëf ya tegoo tey. ndax sëñ Abdoulaye Tubarkalla ñu ko xam ñëpp xamoon nañ ko mu nekk seyxul islam nekk xalifa général Mouride nekk doom maam Serigne Touba radiyallahu waaye nekkit koo xam ni nii fi mu fekk Touba ak fi ko yóbbu képp kuy Muridullahi mbaa ngay njabootu yant bi. xam nga ni liggéey na liggéey boo xam ne nii ñun am dañ doon wax ni ku ñëw ci Touba daanaka da ngay toog rek ndax sëñ Abdou Lahad liggéey na lépp. sëñ Abdou Lahad day jëmm joo xam ne ji yàllaa ko baaxalal boppam ko fit boo xam ne bii kenn yoru ko jox ko xam boo xam ne bii kenn yoru ko jox ko may goo xam ne gi kenn yoru ko. waaye sëñ Abdou Lahad day géej goo xam ne ku mu jurul wala jaboote wala sax xam nga ni.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 yéen ñëpp sàmm ngeen te kuy sàmm nag dinañu laaj ëllëg li nga doon sàmm lu mu doon sëñ Abdou Lahad yet waa dëgëroon waaye du soxor mukk sàmm nag bu yet wa dëgëree nag wi daanu bare jamar waaye daanu jofi moo am solo kon yan nañu ko yàlla fayal yàlla boole ko ak Serif Abdoulaye Thiaw Laye Serif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 mooy seen euh, euh, euh, mooy sama baay mooy seen ndijaay sëñ Abdou Lahat ñëw ñu jébbalu ci moom ci kër Ablaye Mbale mu di leen seet si seet si googa itam ñooñu ñooy sunuy bokk mu ñëw Ablaye Mbay sëñ Abdou Lahat jël na doomam ñu di ko wax Mara Mbay Góora sëñ Abdou jër na doomam ñu di wax soxna Kiné ñoo ñaa ñooy suñuy bokk kon sëñ Abdou daa ñëw dugg suñu biir kër ba noppi nag fekk sino ngaa xam kër Saliou Ndiaye bi mu ñëwee ñu ne sëñ Ablaye doomi sëñ doomi sëñ Tuubaa day mi ngi ci dëkk bi mu ne ah ñu ne mu ne waaw waaw mu ne ah kooku de ko kon dinaa ko siyaare ca woyefam nga ak mbaax ga ak yaatu ga daal di jóg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 yëkkati ko jox bàyyi ma teew ni ko demal joxal ma ko sëñ Abdou Lahat sëñ Abdou Lahat bi ñu indee bi jox ko mu téye ko ah man dëgg yàlla ca gu rëy ga man dëgg yàlla mu mu mu rafet ni mosuma koo gis waxuma laa nag man Abdou Lahat ko ba ñu toogee ba julli takkusaan ba noppi mu ne moom it la leen yàlla boole ñu takkante fa ay kóllëre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 ak sëñ Ibrahima Seck ak sëñ Abdoulaat ñaari yoon la fi ñëw ci dundam yoon wu jëkk wa sëñ jibi mu mag mi mu tudde sëñ jibi mii moo ne la woon mu doon ko ko jaal si bi mu koy jaal si suba teel la mu ngi war idéem bu ñuul bi ñëw bi dugg ci kër gi fekk sëñ Ibrahima yónni ma may génn nu daje mu ne ma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 mu ko sëñ bi dal baa ngi ne mu ne ko ah eh, sëñ bi dal mu ne ko waaw ah, bi dama fay jaaroon doon la jaal sëñ ji bi rek te bëgg a dem jàll dakaar mu ne ko ah, loolu rek di mënu la fee jële mu ko ah mu ne ko déedéet waaye mën naa laa dimbali nag wax la loo xam ne soo ko waxee dinaa la bàyyi nga dem ma jàpp ca loola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 ñu ne ko am na ku lay nuyu ñu ne kan la mu ne sëñ Ibrahima Seck comme ni Maguette Diagne waxoon exact mu ne kooku damaa yaakaar ne danga may nax daal di dalal sëñ Ibrahima waxtaan na moom ni ko moo sëñ bi loolu andi mu ne ko sopp rek nga ne sama xel lool ma ne duma la fekk Tuubaa damay bàyyi ba yëg ngi Tuubaa belal ma fekk la ziar la ndokkeel mu ne ko fii de ku fekk man Abdou Lahad mi dinaa gëm ni man dong nga la tax a jóg boo ma fekkee nag maa ngi ñëpp ko bokk daal dalal sëñ Ibrahima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 ndax lépp njaboot yonent bi la yonent bi salaa salaam ñëpp ñoo man leen moom eh, boo jàng alxuraan da dégg fa kayfa is ji naa bi kull bin um, kull ummatin bi shahidin wa ji naa bi ka àllaa hawlaay shahida kenn ku ne ña ko jabooti di leen indi ci njaboot ci yonent bi salaa salaam seede leen bi àndaat seede moo tax kenn ku ne eh, dëllal càmmaa càmmee fam xereñal ko pour boo liggéey njaboot gi nga jaboot te boo leen dee présenté yonent bi ñu mat ko sëkk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 ñu doon jël participation waa présidence ci projet bu ma amoon projet un milliard et quelque bu ma amoon maag Bamba Crespin nag ñëpp présidence ñëpp jox nu seen participation bi ñu joxee ñoom ñëpp seen participation mu nekk addiya ju takku ma ni kan dem yóbbul ko sëriñ bi ñu ànd ñëw ñu yegg si Touba.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 joxe na sa dërëm ngi ci fii xaalis bi ñu ne seen participation la ci projet bi nga am mu ne ma projet bi un milliard et demi la woon mat na un milliard et demi mat na arrêté naa jeex na tàkk beneen yoon <laughs> ma ne puisque nag moom moo ne ni woon nit dafay am fulla ak fayda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 ñuy ñibbi dugg ci bi Bamba ne ma yow da ngaa ñeme Serigne Abdou Lahad ma ni déedéet ñeme ko mukk de lim ma jàngal laa appliqué ci moom. ma gis ci moom laa biir ak ragal ragal lan ragal tooñ Serigne Abdou Lahad ragal lan yépp ragal tooñ nit la.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 ko def ñaari kuy ni sëñ Ablaay jëlal mu la ci gënal mu ci jox ko sa mag bi teranga la bu war a dox suñu diggante yemul ci loolu bi nga xamante ne dem na bay bëgg a génn àdduna yéen yemu yónnee sëñ Ablaay yow defe naa xam nga ci dara yow sëñ naa sàll ay mbàjja nga ca ab dara nga ca kurusaa nga ca ak satalaa ca kaalaa nga ca mu ne nee leen sëñ Ablaye daal ak kaamilu alxuraan sëñ nee leen sëñ Ablaye daal lii daal mooy mooy mooy ci ci kere ba mu ñëwee sëñ Ablaye woo ma won ko man ko ah de sa xilaafa sëñ Ablaye taxawal na ko mun ko lii ngay gis mun ko di toog jamono ñu ne laay ni yaay yilif ñëpp loolu amul sëñ Abdoulaye du ko defal moo ko moo ko jëkk a taxawal wala de woon na doon na dox digganteem ak sëñ Ibrahima di dox ba ginnaawam sax eh, kër gi ndax sëñ Ibrahima dafa toogee woon ci siège social ba kër gu mag mais tabaski mi mujj indi fii dañ màgg jaañ mi la ko yeewloo ba pare ñu génn rek otoom ñëw indi alum tabaski ñu ni ñu ni ma dem ni bàyyi sëñ Abdoulaye yónnee fa xarum tabaski mu ni ko xarum tabaski kër ga ma ma yeewoon yeewal ma ko fa fa te yii ma ma fa yeewoon kon wëllërewu ak bokk googu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 xëy na xanaa yàpp ngeen dul am waaye sax yàpp ngeen ko am ndax ñi ngeen dëkkaaleel ak seeni mbokk waaye na leen wóor ni am ngeen tabaski ndax yent yàlla muhammad de ca yërmande ga rendi woon na ñaari xaaf ni bii pour man la bi si des ci pour ku nekk ci sama xeet wi te amuloo tabaski bi wa yowmal am kon yow mi amul tabaski sax yaa ma wan gan yaa ma war a gën a dal xel gën a dal xel ñi nga xam ni am nañu tabaski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 mu ni ko balaa walakin li naqal bi gëm naa waaye dama bëgg lu dëgëral sama xol moom mooy mooy saayur aaya bi sëñ Abbas ni ma foofu de nit ñaa ngi koy firi firi bu bon waaw mu ni ma yent yàlla Ibrahima xolam du rëgg-rëgg mukk li yatmaina qalbi mooy lu dëgëral sama lay ma ni ka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 wax dan alihi xaqan fi tawréeti wal injiili wal quraan yi daal cay teg ne nag wa man awfa bi ahdihi min allahi loolu kon dugal nañu ci biir daal di daal wax nag ne fastabsiroo bi bañitumu li si bàyyatu bihi bëgg leen ci jaayante gi nga xam ne jaayante ngeen ko ngir mooy wasaali ko wal fawsan asim door a wax ne la xadara li allahu anil muminina isi bàyyi na ko taxata sa jërëti kon loolu mu wóor leen cëng ne jaayante gi lu am njariñ la lu wóor la lu am maanaa la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 Euh, la yàlla doon wax euh, yonent yàlla Idrissa na waskur fil kitaabi Idrissa innahu kaana siddiqan nabiyyan wa rafahnaahu makan aliyan euh, sëñ Abdoulaye nekkoon na ko ku sincère ku dëgg koo xam ne nii moo taxoon yàlla doon koy yëkkati di yëkkati turam di yëkkati ay jëfam di yëkkati ay mbaaxam mën a tam tubaarkaala gis nga ko loola loola mooy yooyu te siddiq nag moom moo nekk moo sës ci yonent yi ulaayka lasina an'ama Allahu alayhim min nabiyyiina wa siddiqiina wa shuhadaa wa saalihiina wa hasuna ulaayika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 musaana wax màggal ba pare day wax ak gouvernement ba pare fullaam may na ko mu ne nag maa ngi wëlbatiku wax ak sama bokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yàlla dénk àddina si yàlla far leen te dimbali ci bokki ak bokki taalibe yi nga xam ñoo fi teew nuyoo ñoom waxtaan ñoom la muy wax ak ñoom du bokk ak li muy wax ak wax ak ñii ndax ñii la bokkal diine ji ñii ñooy ndongo yi mu war a defar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 lu lu ñu jiite ci senegal rek mën nañ koo jiite dara du yëngu kon nit bala nga bu ñu nee nit ku baax bu sa xel rafetee dangay ngay bari ay àndandoo ay xarit boo baree alal da ngay bari àndandoo waaye bu sa jikko rafetee nga bari turandoo. exemple bi bi muy jàppale woon Abdou Diouf te nit ñi di wax lu tax sëriñ bi di wax loolu ci rajo bi di jàppale Abdou Diouf sëñ Ablaat ca ngoon ga mu ne man duma wax dara di ko teg ci bakkan.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 man duma wax dara di ko teg sama bakkan lu conseil bi gën a dur mu gën a kontaan ndax man buy dem man maay toog ci wetam nii ñu tëj ver ver yi tàngoor wi duñ bëgg a rey ndax moom bu climatisé day feebar oto bi Touba aller retour def nañ ko pendant 17 ans maa ngi moom chaque trois mois ñu ànd. Abdou Diouf dafa muusoon ndax itam. Euh,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 xamul le passé xamul le futur mu ne li mu xam mooy ci saa si le présent nee na boo fekkee weer wu jot nga jox ko benn libidoor boo ko joxee libidoor bi weer wu jot nga jox ko benn libidoor nee na benn weer nga tëb ko nee na bu ko neexee mu ne la ah man de musuloo ma defal dara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 lan la yàlla di seeti lan la yàlla di seeti wax la rek président Senghor moo wax ni moom bëgg na sëñ Abdou Lahad ñu ko tax mu ni pa ngir lu nekk ci moom dana ko wone moo nu ko wax président Ousmane Camara ngi toog màggat Lo mu ni moom bëgg na sëñ Abdou ndax daal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 jamonoom muy Cheikh Abdou Lahad Mbacké mën nañu tey cour magistral lañu am bu ñu Alaaji Taala Cissé defal cour magistral nag mooy dafa ñu xëpp xam-xam bu bari boo xam ni mu ngi ko taatanee ci xalif général Cheikh Abdou Lahad ba nga xam ne ñun ñi nga xam ni fekke wuñ lu bari figure nañu ko jox nañu ay éléments yoo xam ni duñ ko ñàkkati mukk ndax ay valeur rek ay vertu la génne wane ne sëñ am Lahad loolu bëggoon ci taalibe fulla ak fayda ci fulla ak fayda bu jógee ci nit dara desatu fa bu ci yokkee générosité mooy mbaax mën a teral gan loolu kay ku ko def ci àdduna bii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 mu xëy ci ama wërta si wax ne maytuma kenn ku ma waxati Mamadu Bamba bis naka tey sama digganteeg yàlla wasat bi an bi kaw ni xaama abdallahi xadima abdillahi ya ilahi yàlla seeraloo naa ne la bisum tey def naa sama jëmm ak sama tur muy jaamu bi yàlla donc boo xam ni bi rek day liggéeyal bi yàlla bu mag bi jaamu bi yàlla bu mag bi tax nga wax fa awha ilaha bi ma awha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 ñaan lan lenn ko mu di ko liggéey lan lu mënta ñàkk tax mu doon ko liggéey li amul daxaani li ixdaami nabi ubbu saatihi daxaani ilaamati nabi ubbu saatihi liggéey jëm koy liggéey la tax jëm koy tax yëpp ji rek la dara doolu ji loolu yoral na ko ndax bind na ne mahab mahabati yal muxtaaru sayiduna hubbil maxaani wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaa ulawo